non mais man nag ah la ma dara. Ah. man bañu ma dara. am na ku ma lan lan mooy sa plat. ma ne ko man bool mooy sama palaa <laughs>